Assalamualaikum warahmatullah. rahmatullah ñu ngi leen nuyu bu baax dina ziaré ñu ñëwaat ak yeen ci bis bi di ñentelu guddi gi ci wéru koor naafila bi mi ngi nekk ñenti raka raka bu ci nekk fatiha ben yoon qul ya ayyuhal kafiruna ñett yoon ñu bamtu ko naafila ñentelu guddi gi ci wéru koor ñenti raka raka bu ci nekk fatiha ben yoon qul ya ayyuhal kafiruna ñett yoon wax na ne nag képp ku ko def dinañ la jéggal say bàkkaar bala ngay jóge fa nga ko doon defee dinañ la bindal tiyaabul tolloog nii nit ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di leen fàttali ni naafile yi ñu ngi koy jëlee ci téere seen soxee bu ñuy woowee xorootul xëy képp ku ko soxla nag ci description vidéo bi boo ko demee di la defal benn lien telegram pour nga mën am téere boobu jërë ngeen jëf.